أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمع عليم وإني أعوذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم حال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واقلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي سادد لساني نوّر جناني سفي الأماني وزد برائي حلم الحفيظ مانه يغني عني مضافي li kulli abdin xaatihin yatlubu xayra xuram allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa nabiyina wa xabibina yowma gadan muhammadu alayhi salatu wassalaam lazi qulta fihi wa ma yantiqu an ilhawa in huwa illa yuha wa nahnu nuxyikum bi taxiyati islam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi seetaan seen émission njariñu koor fii si Kaase TV ñu leen di nuyu suñu islam nuyu bu gën a tedd gën a teey gën a sell gën a sakkan di nuyoo jaam di nuyoo yërmande di nuyoo xéewal di nuyoo tawféex di nuyoo gën a matale si nuyoy di nuyoo bi nga xamante ne la reconnaître ndax moo ne inna diina hindala islam tey jii nag di sunu ñaar fukkeelu bis ak benn fi weeru koor tombeek muy sunu vingt et unième numéro si émission bii di njariñu koor tey nag seen émission njëriñu koor daa ñëwaat ngir tontu laaj yi nga xamante ne bàyyi loon nañ ko ko fi ngir mu war tontu ku si nekk ak laajam ah, moo tax it tey dañoo ñëw rek jukki si benn laaj ngir fas yéene koo tontu mu nekk sunu émission tey kii nee na day laajte ndax am na koor yoo xamante ne dañ koo tere ma ne ko aha kay waaw am na koor yoo xamante ne dañ koo tere maanaam yenn yi ñu araamal ko yenn yi ñu sib ko ah koor nag yi nga xamante ne maanaam dañ koo tere moom ñaar la ñaar ñaar lay tere yoo xamante ne maanaam dañoo tere koo xamante ne da ko war nga xam ne tere araamam lay doon nekkul tere sibeel ñaar yi xamante nag maanaam ñooy tere araamal ci koor mooy bisu tëbaski ak bisu korite ndax yonente alayhi salaatu salaam jëlee nañ si abi saad mu wax ni yonente alayhi salaam mu ngi doo wax si benn xadis xaala rasulullahi salaam naa an yow may ni yow mi fitirit wa yow mi nahari nee na yonente salaam nee na tere nañ woor ñaari bés yi muy woor bésu koor ak woor woor bésu korite ak woor bis bi nga maam mooy bésu tabaski kon tere nañ képp koo xamante ne maam da ngay woor loo mën a mën a mën a woor nag bissi yooyu ay feet lañ nang ci lekk nang ci naan ndax feet sax lu taaral mooy lekk ak naan maam rey say gàtt yu baax ah, soo sa yére yu bees tàq yu rafet nga daal di koy sol ngir fas yéene maanaam dundal feet bi waaye nga boole koo lekk ak naan daa nekk loo xamante ne day rafetal feet moo xam muy korite wala tabaski ah ñett fan yi nga xamante ne maanaam tamit ah, ñaari fan yi nga xamante ne maanaam ñoo topp si tabaski benn bi bokk si ñaari fan yi nga xamante ne maanaam ñoo topp si xamante ne maanaam tabaski yooyu moom tamit tere nañ koo xamante ne maanaam da koy woor waaye bi nga xamante ne maanaam yonent alayhi salaatu salaam ko dara ñeenteel bis bi moom dañ koo sib rek waaye ñaari moom yi nga xamante ne ñoo topp ci bisu tabaski muy bisu tabaski ak ñaari si topp moom dañoo araam ko woor waaye ndax ñoom daanaka bisu tabaski lañ ndax may nañ la maanaam bu fekkee ne amoo xaru tabaski nga bàyyi ba suba gi bu fekkee moom nga ko am nga rey ko bu dee ginnaaw suba gi nga am nga rey ko kon maanaam ñett bis yooyu yëpp ñett bisu tabaski la kon moo tax yonent alayhi salaatu salaam teel na kuy woor maanaam ah, bis yooyu noonu moo ta xadis bi ñu jëlee maam ci Buxaari mi ngi wax ni ayaamu min ayaamu minan ayaamu akli wa surbi wa wa kurihu sawmu rabia yonent alayhi salaatu salaam nee na tere nañ ngay wóor bisu minam yi bisu minam mi ngi ko waxee mooy ñaari fan yi nga xam ñoo topp ci tabaski nee na waaye ñeenteelu bis ba moom dañ koo sib kon bis bi nga xamante ne maanaam mooy bis bis bis tabaski ak ñaar bis yi topp yonent alayhi salaatu salaam nee na dañ ko si boo me si Buxaari yu di ko fekk waaye Tirmisi yu tamit tamit di ko fekk waaye nag bis yi nga xamante ne maanaam mooy bisu Minaan tamit ñu bàyyi si xel ñaar bisu Minaan ki nga xamante nekk Màkka waroon na rey hadiyu te amul leneen maam moom lay rey moom bu boobaa nga xam ne daa war a ñett fan bu ñu bisee mu woor ñaari fan boobaa dañ koy may maanaam ñaari bisu Minaan yooyu buñ tabaskee ba suba gi ak bisu ginnaaw suba gi mu mën koo woor bu boobaa dañ ko koy nangul ah, si Imam Malik waaye yonent alayhi salaatu salaam nee na ah, ñetteelu bis moom ah, mooy ñeenteelu bis bi nga xamante ne maanaam moo topp si tabaski nga xam ne mooy ñetteel di ñeenteel nga ne boo to boo compté tabaski bis bis topp bis bis topp bis bis muy doon ñeenteel yonent alayhi salaatu salaam nee na dañoo sib koo xamante ne maanaam ah, da koy woor bare tamit koor yi nga xamante ne maanaam dañ koo sib woor ko mooy maanaam bisu arafa ki nga xamante ne maanaam daa taxaw taxawaay arafa ba noppi naan day woor loolu moom dañ koo sib ki nga xamante ne maanaam demul arafa fopp nañ si moom woor bëgg nañ mu woor ki nga xamante ne maanaam nekkul arafa waaye képp koo xamante ne yaa ngi taxaw arafa rek yonent alayhi nee na ah sim nga woor moo tax xadis wa nu mu si muslim abu daawda doon ko andi ko yonent alayhi salaatu salaam dana naha adi yawmi arafa bi arafin bi na tere nañ ah ñu woor bisu arafa si ñi nga xamante ne maanaam ñu ngi nekk biir arafa di fa taxawee ma gi fas yéene joxe seen ah, farata borom waaye tamit tere na tamit yonent alayhi tere na waat ba ah, di woor bésu àjjuma képp donc sib nañ ko toog yeggul nag si araam waaye ko koo sib dañoo sib maam ngay woor bésu àjjuma kese kese kese kese nga jël ko di ko woor waaye nag bu ñëwee si imaam Malik moom dane maanaam loolu dara nekku si na nañuy woor bésu àjjuma waaye yonent alayhi salaatu salaam daa amoon solo lu tax maam ñëwee daa araam woor daa amoon solo soo xamantoon mu ngi tuddoon jawaariyatu nga xam ne léegi mu ngi Zeynab la njëkkoon tudd nga xam ne mu ngi tudd jawaariyatu nga xam ne yonent alayhi salaatu salaam da koo mosoon fekk mu woor bésu àjjuma yonent bi ne ko ndax da ngaa wóoroon démb mu ne ko mu ne mu ne ko déedéet yonent bi ne ko ndax da ngaa fas yéene wóor suba mu ne ko déedéet yonent bi ne ko kon dogal moo tax ñu bari ci xaalis boobu noonu la ñuy sukkandiku moo tax ñu naan bisu àjjuma kase kase kase dañuy tere ko woor maam loo xam wala boog boo koy woor da ngay woor alxamis ba noppi doog see teg àjjuma wala da ngay woor da ngay woor ajuma bu na fas yéene see woor tamit samedi bisu samedi kese tamit dañuy tere ki nga xamante ne maam da koy woor yonent alayhi salaam nee na bu leen toppandoo yahudi di woor di feetandoo ak ñoom ci feetu samedi bi moo tax yonent alayhi salaam doo ñu tere maanaam ñuy woor bisu samedi moo la ñu sib ko waaye nag bis yooyu noonu teewul maanaam nga woor nga woor ko maanaam du bàkkaa ba tey wala boog bu fekkee maam yow yow yow nekkoo ku ñuy roy koo xamante maam boo ko defee nit ñu bari topp la si boobaa moom imaam Malik nee ko mën nga koo woor rek waaye bu fekkee nag koo xamante ne ku ñuy roy nga boo ko defee mu nam ñu bari def ko di la si toppandoo ba dem ba mujj koo bëgg a waral sax boobaa moom ah, déedéet du la war dañ la koy sib si yow kon képp koo xamante ne ajjuma kase ngay nga bëgg di woor mën nga see boole alxamis wala nga boole ajjuma ak samedi boobaa dinañ ko nangu dina mën a nekk waaye ajjuma kase nga bëgg koo woor loolu moom lu ñu sib la waaye ba tey ah, nga ah, jël jël jël bis sikki nga ne maam yow tamit da koy wor waaw yow mu li nga ne maam yow da koy woor bis yi bis sikki nag bi nga waxee mooy maanaam maam kon tey jii maam la vingt neuvième tey jii la vingt neuvième jour si weer wi ñu war a séntu euh, weeru koor suba nga ne kat man di daa woor suba bu nekkee weeru koor ah ma àndandoo woor ko bu nekkoo weeru koor nag ah ma ma ma ma ma woor noonu rek loolu dañ koo sib koor googu noonu dañ koo sib bugguñu maam koo xamante ne maam mu ngi def loolu noonu waaye te ba day bokk na tamit si ah, koor yi ñu sib mooy bés bés bés bu yàlla sàkk rek nga da ngay woor bés bu yàlla sàkk rek ngay woor koor goo xamante ne amul dagg chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour ngay woor imaam Malik nee na dara nekk si waaye yonent alayhi salaatu salaam am na waa joo xamante ne saa su ne da ñëw di woor di woor yonent bi ne ko léeg-léeg del dog moo tax ñaata naa mooy saafi a xanifa naan bis yooyu noonu daal di woor chaque jour daal chaque jour daal di ko woor daal ah nekk na loo xamante ne lu ñu sib la mais Malik moom aayalu ko beneen bi xamante ne maanaam mooy mujjanteel bi nga xamante moom lañ si koor mooy koor goo xamante ne da ngaa gane ji da ngaa gane nit kon tey jii maanaam man ma ñëw dem gane ji kan dem siyaare ji kan ñëw seet si ko ba noppi naan damay woote aw ma si ndigalam te kan kat mu ngi may bëgg a berneel loolu lislaam da siy bëgg maanaam comme nit ki bu la gane see nga nga tere ko ndax yonent alayhi salaatu salaam moo ne man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfa yonent nee na ku gëm yàlla gëm bis penc na ngay teral sa gan mu teraa nga googu noonu gan gi di la defal nag dara gënu see yey lekk ak naan mu tegal la ay berne yu baax nga laa koy lekk moo tere nañ ngay seeti ji nit di woor wala boog bu fekkee da ngay seeti tamit di woor nga teel ko ko wax ne ko kat diw kat dama laa bëgg a seet waaye bëgg damaa bëgg a woor suba wala boog nga gane si ko nag damaa bëgg woor suba nga ne maam du la préparé suba si ay berne yooyu waaye mu préparé ay berne ba noppi ba daa di ñëw nag ah, ba daa di yaakaar ni maanaam ah, ah, wooro nga ñëw ne ko damaa woor loolu islam ñaawlu la moo tax ñuy sib woor maam gane si nit rek ne da ngay woor tàgg woo ko wala yooyu noonu loolu islam daa nekk loo xamante ne dogoo sib kon ki doon laajte question bi naan ndax am na koor yoo xamante ne dañ ko kon koor yaa ngi noonu ñaari koor rek lañ araamal ku ko woor muy bisu feet yi muy korite ak tabaski yii sib nag wax naa la ko nee naa la mooy ñeenteelu fan bi si minan moom dañ koo sib ak arafa ki nga ngi taxaw arafa di woor arafa ak ki nga xamante ne maam ajjuma rek lay woor ak ki nga xamante tamit samedi rek lay woor ak ki nga xamante ne maam bis sikki da koy woor kon ñu ne suba dañuy séntu weer yi ah mu ne kat naa woor rek bu weer fe bu weer fekkee bu xëy naa ñu ma weer feeñoon na démb ah ma daal di continuer sama woor waaye bu fekkee nee nee nañ ma feeñul ma daa di woor noon rek loolu dañ koo sib bis boobu nga koy woor waaye tamit ah, sib nañ tamit di woor saa su ne saa su ne waaye maalik neen dara new si waaye tamit mm, ba tey it nag ah, sib nañ tamit di gane ji nit naan da ngay woor a ah, tey xam naa lii lañ leen andiloon si seen émission njariñu koor lépp li si jub yàlla sunu borom la lépp lu si dëgg man mi doon wax la ba suba si waxtu bi incha allah in uriidu islaaha mastaxataw wa maa tawfiiqi illaa billah alayhi tawakkaltu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu